ñaawlu yi fi jotoon am ci diggante waaye takk der ndaw yi ña ca gën a lonk ñooy jaaykat yi livreur yeek marchand ambulant yi looloo waral ñu doon amal ab ndaje. non ñun la rek ñun ñëpp citoyen yi le xët-xët dafay tardeel seen liggéey ba tax na ñoom ñu ni duñu nangoo ci lii. ñun ay ndaw lañu yor suñuy cag-cag yor suñuy xar investir suñu xaalis ci réew mi tey wax dëgg yàlla. li fi am ñu koy nakarlu torop muy ci parti opposition bi ndax lu ñuy ñaawlu la d'abord ndax ñun ay doomu réew mi lañu ndax fii dañ fay am walla ndax ñun ci lañu bokk boobu ba léegi ñu ngi yee fitna ay doomu jàmbur di ci loru loolu la ñu bëgg mu dakk ndax tey dañoo nekk ci préparation tabaski te ñëpp xam nañu tabaski nu mu méttee affaire yi moo war a dakk. bu ñu sukkandikoo ci ki yore kàddu gi ñoom liggéeykat yi daañu jël seen matuwaay ngir dakkal lu ni mel. dañoo dégg na ñoom nee nañu dañoo woote. vendredi samedi te ñun lool duñ ko seetaan te duñ leen ko nangul. mënuñoo jël seen doom yi yóbbu leen fële ñëw fii bugg ñoo sonal ñun lool duñ ko nangu. F24 li ñuy wax gëmuñu ko du dëgg su ñoom dañu bàyyi ni ñi liggéey te ni ñi nekk si jàmm yaa ngi dégg. bu fekkee ne nag ñoom dañu pare pour def loolu ñu ne ñu ngi pare nañu pour xaar leen luñ ci góobee gar ko nañu bàyyi nit ñi liggéey marché yi ñu fi woote bu dee lañ leen autorisé ñu def bu ñu leen autorisé lañu bàyyi nit ñi nekk ci jàmm fii pays démocratie la. ñu doon jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi. ndaw yi nekk ay góor góorlu bokk ci plateforme de la société civile. doon amal ab ndaje ngir saytu naka la ñuy def. bay wéy di liggéey saay su jàmmaarloo amee. ci seen kàddu nag ñoom ñu ngi joxoñ baaraamu tuuma la F24. ngir noonee muy woowee gune yi. ngir ñu nekk ci tali bi. ba sax tere leen ñu liggéey.